aywa bi bien macha allah très bien. wóob foofa toj na. <laughs> non tata Yande wàcceeti nga fi. no c'est pas pour rien gaañ di la laajte. da ngay wax rek li nga kari dee nga fiy tege. xoolu yóbbu yaa bay ci wëndeelu mbaay mbaay gi. ay non xoolal ma carotte gi. <laughs> ak pataas beeg suuf beeg pomme de bi. ak limon nga sànni ma soos ne ñànkatañ ne ci ruq ba. Uh-huh. tata Yande foofu wàcc na. Uh-huh. léegi yow nga ni yekkal nga waa ngeen yëpp. léegi il faut ma yekkal sama papa tamit. may ko ci. Abdourahmane papa. ah yii kooku la koo koy góor gi fay. papa mang lay yakal bi en mhm. spécial yàkk mhm. te di wax suñu wa Sénégal yépp ñu moytu corona bi. def attention waaw mhm, lu ñu mën. surtout troisième âge bi. ah surtout. ay ah, bismillah bismillah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mal la mariatu fi ci planétaire ma sha allah fas del dellusiwaat tay ci kàttanu yalla ni ko fi baxone defé di nuyu ñëpp di leen ziar di leen wàcc seen way te leen ñaanal yalla yiwe adina ak alakhirah di ñaan yalla Euh, jàngoroy euh, Covid 19 bi yàlla boole ñun ñëpp musal ñu ci. waaw yàlla muccal ñu ci di euh, ñaaxaat mbokk yi rek di leen wax ne toog leen ci kër yi bu fekkante ne amu leen farata yoo leen di dox. voilà même bu dee farata it ñu topp instruction yi ñu wax ñoomin gaaw ak ñoomin masque ak ñoomin hand sanitizer di pompe ak di def yëpp macha allah def ciy baax. voilà yal nañ ci yàlla musal ñun ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ko yàlla yëkkati leen ak jàmm ak salaam yëfi teel a jóge ci àddina bi. ay mbokk yi di wax na tey gis ngeen suñu yóbbu yàbb yee la ñu ràngale Euh, seen soppe seen xarit moo dellu si ci kàttanu yàlla dafa busy woon tata Yande tata Yande nuyul njaboot gi macha allah. salaamaaleykum waa Saveurs na ngeen def namoon naa leen. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu wàcc na gis nga léegi nii. damay bëgg ñuy rat tag tagee yëf yi rek. ok di ko may ay dóor mu daanu mu féete boor amul ñu la fi tàmmeewul woon. maa leen raw te dama xamul ndax waa Saveurs dañ la war a alamaan wala luñ la war a def. ah nañu bàyyi ba corona bi dem ak jàmm ñu soog ma alamaan. bon nag foofa toj na <laughs> aywa bismillah foo nar a inshallah tey euh, je vais vous faire des chouki chou curry. ok curry sauce curry chou curry. chou curry ok sénégalaise avec hein. du mouton. Euh, yàpp bee nekk lu xëccal mu jege wa del door français mais dor olof. du mouton de la viande de mouton. ouais uh-huh. des oignons. des oignons j'ai mélangé le yellow onion et le et le et les oignons rouges. ma ngoog bon soble bu xonk beeg euh, bu kii bi la jaxase mais sinon ku ku mu neex nga jël sa soble. bi nga préféré ok bu ma bëgg uh-huh. um, du cabbage. Euh, du euh, chou le français bi ma ok euh, du chou. chou bay nek nonou des carotte. carottes ga du citron. limon gango. ngoogu. pomme de terre. yeah, pomme pomme terre gi <laughs> terre ga ngoogu. patate douce. Mongo ngoog gango. gaa ça c'est de l'ail. Uh-huh. ça c'est du gingembre. Uh-huh. ça c'est un peu de muscade nutmeg. ok. et c'est du poivre. Uh-huh. bien sûr de du curry. moi j'aime bien le curry jamaïcain. Ouais, jamaïcain parce que c'est pas fort. et du sel. hmm Et euh, bien Okay. Let me just uh, let me just you know do the English part little quick because sometimes people are asking me why we don't you know translate it in English and French. Since you speak French better than me, so you do the French part, then I will do the English and the Wolof part. Okay. Okay. So today Tatayande is making uh, curry sauce, but this one is like the Senegalese style. Okay, it's not like the Jamaican style. And for that, for this recipe we will need some lamb meat okay lamb meat and then we need onions it doesn't matter here we're using the red and yellow onion but it doesn't matter all kind of onions that you have you can use it right we have cabbage like vegetables you can put vegetables your choice right the one right. that you like right. okay now here we have cabbage we have uh, carrots we have potatoes and sweet potatoes here we have some uh, lemon uh -huh. okay and we have garlic chop chop chop uh, ginger, chop, chop, chop. We have a little bit of nutmeg because she likes to add a little bit of nutmeg on her recipe. And we have a little bit of, uh, how you call it, black pepper. Right. And salt. And here we have now the Jamaican curry powder. Mm -hmm. Okay, excellent. let's take it ah foofa toj na mbokk fi wàcc na tey dañuy anglais français wolof xanaa aywa day jeex. <laughs> merci aywa ah, très bien macha allah tata Yande. Mm-hmm. foofa toj na léegi lii lan la yàpp bee nekk. noonu yàpp bi lay def bismillah. ok. Et j'ai vu que tu as mis un tout petit peu de sel. J'ai mis un peu de sel. Ok, excellent. So she just seasoned the meat with a little bit of salt. Excellent. And what kind of oil are you using now? Like all uh, vegetable oil? Oh yes. Okay. Yeah. Mango. nga ko ba nag oil? yi. oil ko oil ku nekk diwlin boo am aywa très bien macha allah. plus Tata Yande. may ma ma zoom ya fi mu gën a génn <laughs> foofa toj. très bien waa léegi yow Tata Yande ma ni. Ah. dafa mel ni. dafa mel ni léegi yàpp bi. Euh, da nga ko da nga ko saaf. non dama ko cas. ok cas mooy lan. mooy da ngay def yàpp bi di def tuuti ndox. di ko muur muy ŋeer di ñor. di defaat tuuti ndox di ko muur di ŋeer ba mu ñor. doore. très bien nga xam ne togg bi du yàgg. foofa toj. So, je vais mettre un peu de garlic. Ok. Ça, un peu d'ail. un peu. Ok. léegi mangok ngoog la she just add the chop chop garlic. j'ai mis le ginger. and the ginger. and then the tuya. Ok. so now she's so uh, so the meat has to be golden brown. yeah know? okay good. I like it golden Bon, kon yàpp bi day doore. yeah donc je vais mettre un peu d'oignon. Oh, Come now should adding a little bit of onions. Come ngay toggé churé. Because this recipe requires lots of onions. Yeah. Kon nak mbokk yi, néna kom ni ngay ciuwé nonu rek bayyi ni yëf yi tembi tembi du yàpp bi démé ba dooré. Très bien, faut pas toj. Ah oui, très bien, machallah. Woup, plou, tata yandé. Oui, donc What's je coming next? Je vais mettre euh, curry bi okay, curry. powder. Yeah. So this one is the Jamaican curry, Jamaican, Okay, just a little bit. Okay, legi nak mango tatayande denga mam. Dom pan na tuti ci kar gi, pobar gi. A little bit of black pepper. Yeah. And then ko ci real. And keep on yëngaling it. Yeah. Oh, très bien, machallah. Tatayande. Mm-hmm. Legi bo ci naan reelu noonu Donc je mets les Xam nga man je togg suma togg mom c'est vite fait. Okay. Donc je mets les légumes, ah, ah. je mets tous les légumes. On n'a pas besoin de couper les légumes en rondelles ou quelque chose comme ça. Pas vraiment. Ok. Non. Quand on mago, coucine à n'inko bagarre, adine les légumes, faut faire touch. Voilà. Choubi. Ah, ok. Donc je mets les choux. Très bien. Maintenant, faut faut faut watcher na. Merci. Ah, merci ouais. T'as yandé. Donc je mets le. Yangi nyulu. Def ndorbi. Ah, ok. C'est vraiment super vite fait très bien and then you vinaigre de riz. vinaigre de riz rice vinegar. yeah mom moy suñu vinaigre bi ah, sa day forox bon a toj donc euh, je vais mettre du poivre encore. wa doyna bu le reste je le mettrai bu je mets le reste des. très bien très bien machallah très bien tata Yande. Mm-hmm. fofa toj na lu des. Euh, dañuy xaar rek légumes yi al dente après ñu def ci soble bi so dama leen doon wan juste un peu. ok comment ça évolue d'assiette. excellent ay très bien macha allah tata Yande. Mhm. dafa mel ni yow da nga wàññi feu bi ba mu yem su ko defee mu bañ fa nekk bax bax yi ñëpp jom. exactly très bien. so je mets là je vais mettre les. restant wul ail bi. garlic ok the leftover garlic the rest of it. ok and then je mets le reste des oignons. comme cuura nga oh, koy toggee man comme cuura laa kay toggee. ok et voilà excellent. danga yàgg est xam nga benn affaire. non. gis nga sa cuukari tey bii nii. <laughs> macha allah. Uh-huh. dama cee fas yéene yekkal sama système bu baax a baax ku bëri te macha allah. Uh-huh. Uh, muy uh, soxna sa Cissé Ndiaye. Khady Cissé ñu ngi lay nuyu. yes kooku mooy jigéenu Bamba Seydi. Uh-huh. Uh, kooku mooy yaayu ay dondooy Diop. muy système bu baax a baax a baax macha allah bëgg saveur di ko béggee ok naan ko kariw tata yande bi. yekkal naa la si boobu ma chérie loolu la xale naan foofa toj. <laughs> aywa très bien macha allah foofa so je mets. Euh, muscade bi muscade bi ok nag meeg. voilà da ci laal yow tuuti muscade. bu tem tem dafay neex dafay ëpp. day neex ba ëpp. oh si si. man de xam nga man ci yooyu laay dox. yow ba <laughs> yow bañoo dara bay débordé yow bañoo dara. <laughs> waaw nga bañoo dara gi macha allah. très

ak Anta tey nga yéen ñi rek laa yekkal. Anta Gueye menn. Anta Gueye menn. foofa toj na félicité. foofa toj na. ak Kine Gueye ca North Carolina. Eh, Guèyeen yi foofa toj na. avec tous les céréales. Guèyeen yi ku leen sumi sax du jaween. ñoom ñëpp sumi ndax ceeb ah, ah, ah, ko fa yemale bon nag ndax ceeb moom bu dee waa papa moom mën nañ ko ci may ceeb moom bàyyi leen ko ndaw ku ndaay ceeb ak mburu am na borom très bien macha allah. pare na foofa toj na. waaw c'est prêt. wow. baar na yeah. oh waaw. yee baar and now you eat it over white rice. mu ngoog jeex na. très bien sa ñàkk tàng jën bii de kenn du ko patal moom xam na <laughs> patu fufu moom kenn du ko ci def. donc li sa ñàkk tàng jël sa ñàkk tàng ngi ne la pare na. Uh-huh. très bien. yeah c'est vite très bien Lady, il faut juste qu'on s'occupe euh, plus de nos de nos elders voilà troisième âge oui oui les enfants aussi oui surtout parce que xam affaire bi xale yi mën nañ ko am mais du leen tëddal ni muy tëddalee mag ñi mais xale yi bu ñu ko jëlee mën nañ ko indil mag ñi exactement surtout mag ñi nga xam ne surtout même dul mag sax koo xam ne dafa amoon feebar yu mm-hmm. chronique ci moom ay type one diabétique ak yenn yenn jàngal ñu amoon problème bu poumon ak yooyu yëpp nañu moytu rek ah. yal yaa ngi ci moytu bi di ñaan baaraamu kaw gi wicce ko mbelli mbelli jëm ca kaw baaraamu suuf gi c'est le petit moytu xool ma ngay wëndeelu mbay mbay mm-hmm. très bien ba nag mbokk suñu ñuubu yaa ngi vidéo complète yaa ngi ci youtube bi salaamaaleykum wa rahmatullah mari